jëloo ba sopp bay Cheikh Ibrahima Mbacké sama waajaa daa teere wu jëbaraamam ñu ngi tudd bu baax tey jéggoo ñu ci doon barkeel rek ok jërëjëf sëriñ Mame Mor asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu la ñaanal nga yàgg fi ci suñu kanam dem ànd di ziar mbokk taalibe yi nga xam ne si ne ñoom la ñu fekk